vendredi sur Malikia TV. alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki telespectateurs Malikia TV yi ci bir réew mi ak yi ci biti rew. rendez rendez-vous ëlëk ci Tiwawan Hadratul jumaa ak ay plateau spécial ci walu diine gi ak tariqa bi في ci Malikia TV bu leen ko kenn na sali incha allahu taala à partir de 16h di ngeen am en direct plateau spécial ci wàllu xadaratul jumaa buñ ca noppee dëgtal leen xadara bi ak ay boroomi xam-xam tok ak ñom ci plateau yi waxtane tariqa bi ak diina ji bu len ko kenn nettali insha allah taala ëllëg ci Tiwaawan bu len ko kenn nettali fi ci Malikia TV leeru mawdo